glory glory man united sama gars yi naa leen ñëw si suñu épisode 4 podcast rapidement bëgg a wax si suñu débrief match contre Tottenham ensuite wax ci suñu mercato donc ci débrief bi match bi ñu doon Tottenham ngay gis ni li waxoon rek la ñuy waxaat dañu gis benn équipe bu Manchester boo xam ne concentré wuñ dans le jeu équipe boo xam ne amuñu discipline équipe boo xam ne dañu manqué rigueur équipe boo xamante ni positionnement bi c'est fait n'importe comment équipe boo xamante ni ils font pas les efforts ensemble équipe boo xam ne seen jeu dafa esthétique amul mouvement bu bari autour du porteur du ballon te loolu ñu ngi koy souligner depuis suñu premier podcast mu nekk loo xamante ni on attend que coach bi daal ci travailler te jusqu'à présent c'est pas encore fait parce que match bi buñ ko xoolee ñun dañoo amoon benn avantage bu graaw parce que première minute de jeu même pas cinquante de jeu ñu am penalty par Anthony Martial moo ko provoqué transformé par Bruno Fernandes mu nekk benn double avantage parce que avantage la ci tableau bi mais également avantage psychologique la mais dañu gis ne derrière dañu def benn erreur bu grave li nga xamante ni dañu encaissé deux dañu encaissé benn but deux minutes plus tard te football ñëpp xam nañ ko du secret minutes yi gën a important ci match bi mooy les minutes qui suivent le bu boo dugalee but minutes yi ci topp moo gën a important ci sa match da nga war rester discipliné mais ñun dañu gis ne dañu encaissé benn but te le comble mooy que but bi ñu encaissé il a fallu suñu défenseurs yi def quatre voire cinq erreurs pour ñu encaissé but bi e ça c'est c'est c'est c'est incroyable parce que tey Harry Maguire bal bi dafa ñëw ci moom mu koy dégager baaxul mu dem ci li mu koy dégager à son tour baaxul mu ñëwaat ci Maguire mu koy renvoyer vers son gardien passe bi baaxul Luke Shaw di récupérer bal bi Maguire xëcc ko mu daanu il a ko ñu enchaîner erreur yooyu yëpp pour que mën a Et ça, c'est incroyable. ñu ne déet ñu dawal tuuti on a encaissé un deuxième but deuxième but bi Maguire sorti défendre def faute bi mu defee faute moom ak Matic je pense ñoo fa nekkoon j'en suis pas sûr au que ñu empêcher jeu rapide bi non ñu taxaw empêcher wuñ jeu rapide bi Harry Kane il a joué rapidement le ballon Eric Bailly mi nga xamante ni moo doon marqué Son au mu suivre moom il était pas concentré au lieu que mu topp son vis à moom bi ñu defee faute bi la def jeu arrêté taxaw benn place Luke Shaw mi nga xam ne moo doon jouer latéral gauche nga xamante ne ces deux centraux génn nañ ci droite bi au lieu que mu couvrir dans l'axe non moom dafa taxaw fee di surveiller adversaire am direct adversaire direct bi la doon surveiller donc mu nekk ay détails yi nga xamante ne manque de concentration la manque de discipline la positionnement bu bon la moo ko waral te deux buts yooyu c'était yi nga xam ne c'était évitable mu nekk loo xamante ni depuis le début ñu ngi ciy wax te ça nous a coûté ce match là parce que après ces deux dañu dañu nekk en effet numérique parce que Martial fa jël un carton rouge te carton rouge bi pour man c'est un carton rouge bête parce que Martial mun nañu wax xale la 23 ans 24 ans la mais quand même c'est un joueur expérimenté Martial mi ngi démarrer sa sixième saison en première ligue c'est pas un joueur c'est pas un joueur anodin la en première ligue donc bi mu jël. c'était évitable parce qu'il devait pas répondre à la provocation mais ñun sax du carton rouge bi moo ñu moo ñu moo ñu sax ñu sax gën a gën a gën a gën a soxal mais réaction bi am derrière parce que ñu gis suñu capitaine mu taxaw fële bi ñu rougé Martial jàpp ndigam benn Marcus Rashford la ñu gis mu jege wax ak arbitre bi après ça alors que bu doon yeneen équipe bi dañuy gis dañuy def pression ci arbitre bi bu doon équipe bi mel ni Chelsea nga xam ne xamee nañ leen ko moom seen joueur yëppay daw mettre la pression à l'arbitre ko defee arbitre bi dafay jouer ci arbitre bi bu ko defee mën na sax dem xoolaat VAR bi bu ko defee ñoom ñaar ñëpp lay rouge wala mu jaune leen même bu fekkee sax ñëwaatul ci décision am demul xooli VAR bi ça va le mettre la pression ba Lamela faute bu mu defaat bi da koy renvoyer door wala joueur Tottenham bi faute bu ñu defaat da la ñuy jox carton mais ñun defuñu ko suñ joueur ils étaient là laxiste taxaw jàpp seen digg di apitoyer wu seen sort te détails yooyu ça compte sa compte parce que tey benn Mourinho par exemple. xam na ne mi-temps arbitre bu amee ay situation yu am nuance dañ koy xoolaat ci mi bi te leer na ko ne l'arbitre va revoir les images te bu xoolee image yi dina xam ne le carton rouge était justifié pour les deux te boobaa bu ñëwaatee pression boobu dina xaw a nekk ci moom te bu Lamela defaatee faute daf ko nara a jaune wala mu rouge ko daf ko nar a jox deuxième jaune am mu génn dañoo mi-temps rek mënuñoo rocc Lamela dugal keneen te ces genre de détail là ça compte mais ñun on n'a pas compris la réaction bi ñu joxee martial rouge bi ni ñu taxawee ñoom ñëpp c' est incompréhensible bi ñu mitanwee ñu mënee ñu donc ñu mitan trois buts bi ñu mitanwee dañu gis ne suñu coach dafa def benn choix fort choix bi personne l'a compris même les commentateurs français yi nga xam ne man match bi RMC laa ko ñoom ils avaient pas compris pourquoi Bruno di génn alors que benn jour bu mel ni Paul Pogba dafa defoon benn premier mi-temps bu catastrophique nga génne sa meilleur élément bi nga xam ne ci moom lañ yaakaare yoon benn étincelle parce que quand même liñ ko justifié mooy dafa am benn rumeur déjà Bruno sax tey def na déclaration pour balayer rumeur parce que rumeur bi dafa waxoon ne Bruno dafa tenir des propos du dur ci vestiaire bi ba pare dafa wax ne coach bi tactique yi muy utiliser baaxul tey Bruno bi mu jógee Portugal ci seen match yi amical yi donc wax na ne du loolu moo tax parce que moom il s'est pas exprimé ci mi bi. dafa wax ne coach bi dafa génne parce que daf ne ko le match déjà terminé te bu fekkee li Bruno wax la ñu jàpp ñun loolu daf ñuy daf ñuy jaaxal parce que ñun duñu Lens duñu Nîmes duñu Jaraaf ñun la Manchester United donc équipe la boo xamante ni tu joues à domicile même si dañ la mënee 3 buts à 1 et tu t'es retrouvé à 10 contre 11 mais quand même ba xaar benn réaction d'orgueil mais non nga ne match bi jeex na génne sa meilleur élément bloqué match bi et au final humiliation la ñu jël à domicile te équipe bu mel ni Manchester United que que nekk à dix nga nekk à neuf dañuy xaar benn réaction d'orgueil parce que du man du du du n'importe quelle équipe Manchester United la mu nekk benn choix boo xam ne coach bi def na ko te depuis ñun ñu ngi critiquer ay choix yi muy def ak ay ay ay ay ay changements yi muy def ñun dañ koy critiquer depuis le début te nii dafa nekk benn choix boo xamante ni def na ko mais jaaxal nañu lool lool lool lan moo ko justifier amul. amul lu ko mën a justifier parce que loolu mu wax ne match bi jeex na pour ñun ça tient pas debout te ensuite bu fekkoon sax semaine bi ci topp la nga am match on peut dire waaw mais yow semaine semaine bi ci topp ay journée FIFA la et journée FIFA du yow yaay contrôler sa temps de jeu poulain parce que bu demee en équipe nationale déjà équipe nationale ku ci nekk da nga waroon jouer trois matchs donc du yow yaay décider foofu noonu temps de bi muy am foofu noonu donc choix bi dañ koy boole ak yeneen choix yu bari yu mu def yoo xamante ni. ñun dañ naan coach bi am na lu des donc na dafa war a gaaw daal di ci taxaw pour changer ko parce que ces choix sont douteux et bu ñëwaatee ci choix yooyu noonu sax par exemple dañuy gis ni suñu banc bi ils sont pas exploités jour mel Donny Van de Beek gis nañ ni mu ñëw enchaîné wul match yi amul rythme te dañuy gis ne on va vers des échéances yi nga xam ne échéances yu importantes la parce que par exemple tey am nañu match contre Newcastle en première ligue buñ ci jógee on enchaîne avec PSG après am nañu ay gros match comme ay Chelsea donc mu nekk des matchs yi nga xamante ni bu ñu fa yeggee mënoo jël des joueurs yi nga xamante ni depuis le début la saison fexewoo ñu nekk en rythme nga la sànni dans le bain loolu cadeau empoisonné lay nekk te cas boobu nag mënuñ citer cas wu Eric nañ mu def des performances yu baax en cup au lieu que coach bi enchaîné loo ko non day def performance en cup bu baax match bi ci topp mu dellu banc ñu ñëw contre Tottenham mu sànni ko direct dans le bain résultat bi Bailly il a fait un donc on ne comprend pas lu tax joueurs yi bu ñu defee des matchs yu baax du leen laisser ñu enchaîner noonu daf la ñuy génne dugal des joueurs yi nga xamante ni match précédent dañu defoon de matchs yu catastrophiques te cas bi ñu ciy cité mu cas bi gën a flagrant le cas de Paul Pogba depuis le début de la saison il a enchaîné des matchs yi nga xamante ni des performances médiocres mais terewul mu may ses concurrents chance am te ñu dañ koy critiquer ci loolu depuis le début dañ naan dafa créer ay intouchables ci équipe bi. te loolu noonu daf ko ci war a jëlee dafa war a indi benn concurrence seen exploiter banc bi parce que banc bi am na des solution yoo xam ne war na leen mën a exploiter donc jaa ñu ngi ko ci xaar donc am nañu ay échéances yu mag yaakaar nañu ci échéances yooyu il va prendre les bonnes léegi bu ñëwee ci deuxième partie bi ñu wax ci suñu mercato bi donc d'accord on n'a pas pris les joueurs qu'on suñu priorité yi d' accord mais ça c' est du déjà vu à Manchester que muy Luis Van Gaal que muy Mourinho que muy Ole c' la même chose première année bi dañ lay jox li nga bëgg deuxième année bi doo am li nga bëgg Mourinho Van Gaal génn nañ ci média yi wax ba sonn même chose après au finish dañ leen dàq Ole il a préféré jouer la méthode douce maanaam il dit qu'il est satisfait de son mercato et cetera et cetera mais quand même gars yi ñu ngi naan mercato bi dañu def ay panique buy et tout sa d' accord bëggoon nañ Sancho jotuñu ci et tout ça. mais quand même man je vois qu'on a fait un bon mercato du mercato boo xamante ni moom lañ bëggoon wala mercato boo xam ne c'est un mercato top mais quand même c'est un bon mercato puisque amoon nañ un souci sur le côté gauche parce que Luc Shaw moom xam nañ irrégularité la depuis 2015 irrégularité bi la yor te gis nañ ne son remplaçant Brandon Williams des na lu bari donc ñu andi benn valeur sûre te Alex Telles mi ñu andi bu ñu xoolee saison daaw bi moom bokk na ci les trois meilleurs latéraux gauche yu am ci àdduna bi bu fekkee sax du la du moom mooy le meilleur actuellement donc par rapport ak saison daawam donc kooku c'est une valeur sûre bi ñu indi ci milieu terrain bi également valeur sûre la Edinson Cavani peut-être mën nañu émettre des réserves parce que comme ni ko Scholes waxee joueur la boo xamante ni il est resté longtemps sans jouer ensuite il prend de l'âge et tout ça mais quand même connaissant les valeurs de les les excusez-moi les qualités de Cavani Cavani attaquant de classe mondiale la donc bu ñu amee Cavani bi nga xamante ni deux ans euh, deux ans en arrière forme bi mu amoon bu fekkee moom la indi Manchester day nekk recrue bu baax a baax a baax donc pour ñun du recrue bu bon donc des na nag quand même ñu xool ses débuts nan lay comporté woo et sax mais jàpp ñu ne benn yoon Cavani recrue bu bon la te ñun on avait un sérieux problème en attaque parce que déjà daaw biñ ko expérimenté gis nañu bi ñu demee ba il a fallu que ñu daw jëli Igalo pour mu ñëw essayer ñu indil li ñu manqué woon foofu parce que Martial quoi qu'on puisse dire du numéro 9 bi ñu xamante ni moom la ñu soxla déjà Ole foofu noonu dañ ko fay critiquer parce que essayé na ko daaw doxul cette saison mu essayé waat ko te Cavani mi ngi ñëw ñuy wax naan il vient en tant que remplaçant ñun gis nañ ni loolu bu ko defee ce sera une parce que il a commis erreur bi à deux reprises def na ko en l ak Lukaku écarté Lukaku pour faire plaisir à Martial ñu Igalo ñëw il a pas tellement eu sa chance comme niñ ko comme niñ ko doon xaaree parce que bi ñëwee il s'est retrouvé sur le banc à ne pas enchaîner les matchs te ñun gis nañ ne Martial wax dëgg fa yàlla comme ni ko Mourinho waxee woon il a ses raisons pour jouer numéro 9 mais c'est pas numéro ci excentré bi la amee plus d'utilité d'autant plus que jënd nañu benn latéral bi nga xamante ni c'est un latéral très offensif il centre beaucoup bu mel ni Alex Telles donc du coup on a besoin d'un euh, attaquant boo xam ne il est présent dans la surface et c'est le moment de mettre xam nga neuf boo xamante ne am na qualité yooyu noonu te ku mel ni Cavani am na qualité yi donc c'est à Ole d'exploiter suñu recrue yu ñu ko andil recrue yi bu leen exploiter à 100 pour cent gëm nañu niveau équipe bi dina yokk bu baax a baax a baax donc les échéances sont là. Ligue des champions mi ngi démarré xam nga ay ñoom Chelsea ñi ngi ñëw donc on attend de lui que mu jël les bonnes décisions pour que affaire yi daal di jëm kanam parce que sinon xam nañ ne bu amee victime buy am moom lay doon puisque Edouard War va pas sauter moom mooy sauter te déjà rek yaa mauvais signe yi ñi ngi feeñ puisque joueur mi ñu ngi génn ku ci nekk di essayer di di dédouaner coach bi naan non le coach il est bien patati patata te loolu bu ñëwee rek ça veut que ça chauffe derrière. donc on attend de lui que mu daal di ressaisir déjà mi ngi wax naan moom ñun situation bi xam nga peut-être c'est difficile mais on l'avait vu l'année dernière puisque suñu neuf premiers matchs on avait gagné deux mais dañ koy fàttali ne ko loolu moo tax on était à des longueurs derrière City ak Liverpool te li ñu amoon daaw ren moom bu ñu xalaat ñu amaat ko parce que reprise bi du ñu defee benn rush noonu noonu alors que suñu peut yenn concurrent direct yi. pour troisième place bi ku ci mel ne ay Leicester dañu chuté parce que ñoom depuis reprise bi ils ont pas enchaîné les victoires tout ça alors que ñun dañu ñëw pour benn enchaînement benn huit match amuñu défaite et tout ça loolu noonu bu ko xaaraat ren situation boobu du amaat ren donc du coup il faut pas essayer laisser benn écart bi c'est déjà présent que nga war a essayer collé wu ci équipe de top bi xam nga ñoom bu ñu defee méforme nga daal la ñuy dab donc euh, ñun moom on l'attend de pied si prochain match yi mu jël les bonnes décisions bu ko defee équipe bi mën a franchir un cap parce que là dañu stagné te war nañu war a mën a franchir un cap puisque jox nañ ko des recrues yi nga xamante ni man jàpp naa ne du recrues yu mu bëggoon mais recrues yi ñu ko jox c'est des recrues de c'est des recrues de qualité donc yu war a mën a apporter quelque chose à l'effectif donc sama gars yi jaajën jëf xam naa ba beneen yoon incha allah.